première édition concours xel-xeli di tàbbi ci activités yi nga xam ni moom la seen chaîne bi di Siweul TV di amal ci wàccaayu màggal Tuubaa gi bu defee kon jataay bi ñu ko tuddee woon tamit ñu ko waxee woon Sëriñ Abdoulaye jaan ñoom tamit dañ leen di sant bu baax Serigne Basiiru ak Serigne Moodu mi nga xam ne si moom mooy jiite woon délégation bi te ay yitte daf ko mu yeewitu ñu ñëw ñu joxal ñu jox leen seen diplôme bi nga xam ne diplôme mu sargal la waaye ñu woo suñu xarit sëriñ Adda balaa sëñ Basiroo jël kàddu wala kuy jël kàddu ci mbooloo mi rek wala bu dee sëñ kàddu sëñ Sadda la ñuy jox kàddu gi tamit mu mu mu mu jàllale waale ko bu defee ñu jox leen diplôme bi jàllale taalif bi nga xam ne moom la ñuy def ci sëñ Abdoulahi bu defee ñoom tamit ñu yeewi leen ndax ku ne xam na ne jamono ji xat na tey ñu ngi ci wàccaayu màggal gi kon sëñ Sadda bismillah jërëjëfati borom Touba jërëjëfa Serigne Touba askay borom Touba jaaraama Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ah ngir tënk rek mel na ni sàng bi ma génnee maa ngi gis ndox yi di wàcc tuuti tuuti te mel na ni dëkkuwaay yi xaw naa sori waaye wolof day faral di wax naan li yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole ginnaaw ba nu ñaanalee Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi te wéral ko. di ñaanal bu baax kilifa yu tedd yi nekk ci barab bi bu ñu ci tuddee léegi sëriñ Abo Mbàkke mii moom sëriñ Murtada moom Cheikh Mouhamadou Fadal waaw moom la ñuy wax sëriñ Murtada Jumaa ku ne xam ko moom mii ak sëriñ Galas nii mii fi teewal waaye ànd ak mbokkam léppam muy sëriñ sëñ xaadim sëñ Modou Mamoun Niang moom sëriñ xaadim Niang sëriñ xaadim Niang moom sëriñ Afe Niang Mbàkke Anta ak Afe Anta ñoo bokk lépp soxna maam Faati Kebe ak sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Fallu ñoo bokk lépp kon sëñ bi fii war nga fee mën a teew ñu xam la ci xam-xam délégation bii dama bokk ci muy délégation waa Njaane sëriñ Bassirou Diané mii toog ànd ak mbooleem sëti sëriñ Ablaye Diané yi cool yi daa bëri te ca man bi doon wax daa doon déglu ana daam daam boo joxatee dégg muy wax dangay toog ca déglu ko nogay si la xanaa ñëwut sëriñ Bassirou yàlla daa dogal man moo ma dimbali fu ne wax naa ko fa damaa ñëw toog ci moom ak Serigne Cheikh Dianeem Serigne Sayer Diané Serigne Cheikh Peexum Diané rek la may woowee waaye Diané lu ñu yëkkati ni sàdda bisimilah kon yéen lu lu mu woote tudd ci Serigne Abdoulaye Diané barke Cheikh Ahmadou Bamba dinaa ñëw keroog Serigne Abdoulaye Diané baayam dafa jaay jural ga jënd ko ak taalibe xam naa Serigne Daraame dana ci ñëw waaye seen maam kama gisoon ma dem mu dem ca géej ga borom yére yu weex yi borom xartaan bu weex bi borom màggal gi kookee doy na ko bam seedale ko ak ñaari ngeer waaye sëñ Bamba fay na seen maam Njaane Bël Gembe Cilmaxa Ñaaxeen foo dem ci àdduna na ngay waxtaane Serigne Abdoulaye Diané waaye doomam ji doon na sëriñ Daam Jaane doon na sëriñ Moodu Jaane doon na sëriñ Fàllu Jaane muy sëriñ Badar Jaane mu baax miy toog boo ko gisee mu noppi gi ak cali gi ci wër adduna bi xam lépp toog doon sëñ Ablaay Jaane dana fi yàgg dana weer daam yàlla na yàlla defal jàmm yow ak ñi ngay yënguwal ci lu mel nii man boo gisee ma bëgg leen man géwal laa daay wax lu baax te wax lu baax taalif la dinaa la boole ñoom ndax lii nay wax raison bu nekk jóge nañ fa ñëw daan nii nag di suñ bunt ci ñoom li wax sëñ Mbay Jaxate maam Musaa Ka man ñu baax vrai kaani Serigne Touba yi ñoom ñi nag ñooy vrai kaani Bamba yi ñoom waykat yi waaye du ngeen def nii ci kii waykat yi waxuma tàccu fi tasu rekk laa wax nag dañ ciy boolal ale ak safar ñii daam sa gaay yii miinu ma leen de yow laay tudd nga tudd leen nan xam ne man sàdda ñang géwlu jàngkatu xasida yi ànd ak jaaja mbay ak ñooleen ñi fi teew ca ma bokk ñoom askanu ngéwal yàlla na leen yàlla defal jàmm bis bi mënoon nga koo tudde ku ne mënoon nga ko dara jaale ku ne waaye sëñ Ablaye Diané sox ak soxna Bali Muntaxa jógu fi léegi ak sëriñ Galas Kalto mi nga xam ne bàyyam ak karo jumaa ji yaa ko def ci daam yaa feeloo lii saam <laughs> waaw sëñ Galas Kalto nee naa bàyyam ak karo sëñ Modou Moustapha daa ñëw fondement bàyyi noo kan ak sëriñ ak sëriñ Fallou Mbacke sëriñ Fallou Mbacke dem waaye la moom Moussa ko doon wax ca naan raayu nga mel waa nga Touba sët ba yor na ko tey Alaaji Fallilu mooy kalifa bi laay ca sa maam da leen ko tottoo muy Cheikh Amadou Lamine Bara mooy doomi sëriñ Fallou di sëtub sëriñ Fallou bi njëkk yor xilaaf ak gi moom nag bu ñëwee moom dañuy jumaa ji moom amatul pro lal ay mukke dañ koy karo. moo tax nee naa penc moo dem ci jamono jii dañuy bàyyi akaraado ndax ñax may sax waaye jumaay ma Bamba ji moom fobeera rek samaam mam demee Gabon dikk dem maa yomba dikk dem lambara dikk wax ila yaqaadalahuma lam yakku ni wala habadan liman ku ni tey lay kolu waaye xaftaan bu weex téere bu weex dem ak géej gi del suwaat sunub sëriñ sëñ Bass yow la ñuy déglu أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما جوك تجيما بكتي مبرما دومي غايغا فاطمه dinaa la wax nag li waral may bàkk sëñ Mbàkke soxnaloo Lo wallaay du bàkk xanaa xamoo ne ndab lu fees bay tuur daa ëpp fees ga moo waral muy tuur saa xolafee sa kub cofeel bay tuuru ci sëñ Mbàkke Soxna may sëñ Mbàkke Soxna dinaa la bàkk di wax sa jëf ji yow te lépp di dëgg waykat wa daan woy Moustapha sa maam ja Seex Musaa Ka laa bëgg a roy di xool ci yow sa baay ja tabax nga ay lekkool te def kalaas ya ñu yaatu def fa làmp yokk ban ya def ventilateur yi ñu tiim élèves ya di upp ndaw lu neex sëriñ yaay waa ji jumaa yi taayif nga fi def roy nga sa maam Cheikh Moustapha mi fondement jumaa yi daam xel kom du ñëw sa gaa yi dem ba sas yi booy te wéj gi gis bokk ca waay maay na la saay daayira bi ñu naan wilaayatu sabab ak ñi ko yor sëñ Mbàkke yaay ki ko sabab jërë ngeen jëf mbokk yi jataay bi day jataayu taalif kon jataayu pël ku fa toog waxtaanee fay nag du fa jomb ba ba tax ma ubbee bayit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ci turu sëriñ Badara Diané mi nga xam ne tey moo fi toogee jataayu Cheikh Abdoulahi Diané waaye ci njiitu délégation bi nga xam ne moom la ñu àndal muy sëriñ Mouhamad Diané ak see Cheikh Basirou Diané ak sëriñ Jili Diané ak mboolem seeni rakk ak mboolem seeni taali taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi li sàdd wax dëgg la kaay waxal ma ku la sa kàddu koo xam ne sa kàddu doyu ko du lu ko wax sama diggante ak waa du sama diggante ak ñii ma àndal sunu diggante ak sunuy maam lañu woon sama maam bi mu yàlla dogalee mu tawat te nekk fa Saalum serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma daf ko yone ñu lu ko mu jox ko sen mam mu yoral ko ko bam wacc ñu denc ko fi ci kon andi bi dembul won ci mam ya lola moy dox ba agsiwaat tay ñu rafetal ko lool mak ñom lu fan wéré at wala ñaar fukki at sunu andi di gën rafet di gën neex dembu safar bi doon def ci kër ga conférence bi man mii lañ ko joxoon mako don def te rawuma len ci jang ëpp len xam-xam waye doyloo gi ak rafetal and bi rek mo waral lu mel jere jërëjëf serigne Basiiru ñu ngi len di sante di len gëreum di teunk kaddu yi rek ci lu gatt moy bis bi bi nga xam serigne dam tuddé nako serigne Abdoulaye Diané jaar ci serigne Badara mi nga xamne ni moy khalifa bi wax ko ko mu lu ko lol dafa joxe ndigal na képp koo xam ne aju nga ci kër gi rawatina njaboot gi nañu ànd maasee ñëw jàppale leen ci bis bi te fekkee ko te ànd ko ak yéen ñu def délégation bi du jar ma di ko tuddaat ndax mel na ni sëriñ daam tuddoon na ñi nga xam ne ni ñoom la mbooloo mi àndal ñëpp kon du ñëw du jar ma ciy jaaraat ñu ngi leen di sant bu baax ci turu sëriñ daam jaane ak turu njaboot gi nga xam ne ni ñoo aju ci sëriñ Abdoulahi jaane gépp sëriñ Badara jaane ak ñu boolem njabootu sëriñ Abdoulahi Diané gépp bàyyiwuñu kenn Sering Abdoulaye Diané nak pas-pasam ci serigne Touba ñepp war nañ ko bayyi xel ndax bi ni jébbalu ci serigne Touba fekk na serigne bi dem ci geej waye waaye ak njébbalam yaari garabi ngeer li ñuy wax ngeer te bo demee fa Saalum ñu naan ko ngeeraan yaari garabi ngeer yoyu mom la ñom la sérel jox gim jox bopam serigne Touba te gisugo waaye bi sëriñ bi demee ba ñëw daf ko ne ñaari guerre ya nga seereeloon sa njébbal la jottali nañ ma ko kon li sadda wax borom yére bu weex bi kenn du moom pas-pas boobu na nga xam ne moom la sëriñ Abdoulaye jaane àndew nag sëriñ Touba njabootam gépp pas-pas boobu ci la ñuy dox ba ci njaboot gii nekk fi nii tey ku sant Diané koo gis ci dëkk bii gis ko ci lu mu warta nekk walla nga dégg ko ci li mu warta nekk ku ko xamkaay kaay fii wax ma ko li yàlla di baaxal ak li sëñ Tuubaa di baaxal lépp beral na ci waa Njaani cër ndax man sama ànd ak ñoom dafa yàgg li ma ko wax ca maam ya doon ba tey waaye ku ci nekkul kaangum alxuraan sax bu ma yebone xawuma ko wala ku ci yoru daaree alxuraan di ci liggéeyal sëriñ Tuubaa kon loolu pas-pas la ñu doon ne ci seen maam mu ni dox ba agsi tey ci Serigne Touba dox ba agsi tey ci Cheikh Mamadou Mountakha mii toogee fi Serigne Touba ñu koy rafetal di rafetal seen doxin ak seen jëfin ak seenu taalib kon looloo tax ñu séddee leen bis bii ñu jaar ci kilifa gi def li ñu war a def ànd ak délégation ñëw teewee ko di ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala sëñ daam mii nga xam ne mo jiti liggey bi ak ñim ko andal ñet ak sunu kat yu tedd yi xamna ni ñëw régie bi wara xol jongante bi mom dinañ am problème ndax man fi mu ne mënumaa xam ku ci jito ku dess ginaaw ngir kenn ku ci nek bu taxawé bu waxé rek da nga ci daldi yek sa bop ta loolu lu am solo ci way la bok kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di tuub di jéggalu nak ci yi way wi ma nak bi ma koy woy sëriñ Mbàkke soxnaloo boobu maa ngi ci école bi di jàng yàlla def ñu xëy rek benn camion daal di ñëw gaare di wàcce ay banc te boobu daara ji école bi xaw na manqué ay banc ba nga xam ne am na ñoo xam ne buñ jàngisee ci suuf la ñuy toog jékki-jékki rek ñu ñëw génnee banc yi fi nekkoon yépp dugalaat yeneen banc yu bees def ay ventilo monté ko loolu nag daal di may jeqi ci laa woyoon way yi xam na ni moom laa defoon naa ne fàtte naa ko sax ndax loolu mu ngi def bëgg a defi ay fan kon nag ñu ngi sant bu baax di gërëm di jégalu bu baax a baax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sagal ngeen ñu siggil ngeen nii ñëpp ñu ngi leen di jottali suñu cantu bopp suñu cantu bopp waaye di leen jottali cantu sëñ Mbàkke Jeng mi nga xam ne moom moo jiite siiwal ñu ay bokki kese ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mu defee am nañ fi lijaasa boo xam ne dañ koo jagleel Serigne Badar jagleel ko suñu Ablaye waaye mu jaare ci seen loxo ngeen tegal ñu ko ci loxob Serigne Badar. ngir mu doon ak cant goo xam ne si dañ koy jéem a firndeel rek bu defee ñu woo euh, sëriñ Abo mu ñëw joxal ñu ko moom sëriñ Murtada moom sëriñ Fadlu mu ñëw joxal ñu ko sëriñ Basiru mi nga xam ne moom mooy mag ci délégation bi waaye mu ànd ak ñoom sëñ Sàdd ak ñoom ñëpp ñëw ñu ñëw nangul ko ko sëñ Seex Gaynde ñoo ngi lay bu baax xam naa woyu sëñ daraane yu moom da nga cee waroon daan bu baax a baax a baax a baax a baax kon sëriñ Basiiru bisimilah sëriñ Abo ñu ngi jéglu lu baax ci yëkkati gi sëriñ Moodu Maamun ngeen jottali ñu suñu maam ji euh, suñu cant gi te seedeel ñu ko addina ak alaaxira te xam ne bëgg nañ ci moom bëgg nañ ci seen maam tamit ci li mu ko defal sëriñ Abo mooy jël lii nga xam ni mooy nu mu tudd li nu tudd ah. waaw lijaasa lijaasa xam nga lijaasa lijaasa daa am kado am décoré am te wolof Njaay ni ne loo xamul lu ne ab seer ga léeg sax da nga wax mbir am ku fekk ni moo la gën a kon ndax benn naan te moo gën a kawe bu ngaa ngaa d'accord jëm ji war naa mën a nekk sëriñ bi sëriñ Basiru nii ak ñi bokkal sëriñ Ablaye Diané toog fee ay jàmbaar lanu alquran ji sëriñ Mamoor Mbàkke sa wéyjur wu sell wu baax na yàlla na ko yàlla dooli leer xàmmee na ko bu baax ndax seen taxawaay xamu lu dul alquran ak xasida daal nii foofu la foofu sëñ daam jaane lañ ko tuddee moo tax bu defee nii tuddee bis bi sëñ Badar jaane sëtub sëriñ Fàllu ak sëtub sëñ Afee ñan jël